damay seen man li ma ci xaar bu mooy gars yi booy def la est-ce que def ñu euh, man production laay wax ne mooy def dañuy dañuy jaay pour pour pour mën a pour mën a xëcc client maa ngi lay nuyu <laughs> di nuyu waa Teranga gars yi nag maa leen gënoon namm nag quoi xam nga ñu ngi naan suñu waa ji fu mu nekkoon uh-huh. mais il faut que ñu comprendre benn affaire uh-huh. euh, Mor dafa am loo xam dafa yomb trop bu ñu waxantee dëgg uh-huh. da ngay dem internet parce que yà yàqu-yàqu yi di am yëpp ci internet bi lay jaar nañu wax ne dëgg. Mhm. xam nga la moo gën a andi sa problème la. Mhm. Euh, y a Google déjà. Mhm. ñu ne la y a du tout dedans. n'est-ce pas. à part ça ñu ne la dans Google tu peux gagner de l'argent comment TikTok. Instagram YouTube. des fois même ñu ngi ñu ngi dem ba ci Facebook. que tu peux gagner de l'argent mais comment demal nga xool ñii di wax ci yàlla. ñu nekk ci internet bi nga xool seen nombre de vues est-ce que monétiser nañ seen chaîne. Mm. est-ce que ñu ngi am luñ bëgg. Mm. déjà benn. Mm. ñan ñoo ci ëpp ay vues. mooy comme li ngay wax xale yu jigéen ñi di jaay seen bopp ci internet bi. ñan ñoo leen di pro propulser. man musuma gëm média classique di xaar internet di ko jox ay ay produits. au contraire internet. dafa war a xaar média classique bi jox ko produit mais léegi internet bi mooy jox. média classique média bi alors que ça c'est dangereux. kon ñun ñoo xamul valeur communication fan la toll. muy beneen beneen bi xam nga tey Sénégal bi ñëpp a ngi xeex mbirum góor jigéen. ñëpp a ngi koy xeex. tout récemment président bi jëlaat na ci mesure bu ferme que ni Sénégal moom fii léegi mu ngi fi. du ko mës def. te du ko mës a accepter. Mm. c'est un problème d'État. mais jël na au moins benn décision bu dëgër que ni. Mm. lii duma ko mës a accepté bëri na ci ñoo xam ne c'est des de des lobbies ñooy nekk ci internet bi man gis nga jusqu'à preuve du contraire gis nga sa Adamo la gis sa Adamo la du ma mës a weddi ëllëg bu ñu demee ba xam ne c'est un ambassadeur des sectes parce que dafa yomb trop nit bu tollu fee naan sama yaay sax nee na ma nangam nangam c'est faux sa gaala man dama ko musul wóolu musuma ko wóolu ay manière am jigéen na ay feccam jigéen na waxinam jigéen na ces fréquentations boo xoolee ñu muy wax ñu si bëri. kii sama xarit laa ak yooyu yooyu ñu si bëri dañ leen jiiñ mbirum góor jigéen. habillement pareil léegi pourquoi ñu war a concentré wu ci benn adama boo xam ne du la wax yàlla nee na yonenti nee na Jésus nee na du la ci wax dara moom. médiocre perversité la ñuy jël da lay pervertir pervertir na jeunesse bi yëpp. ci YouTube. léegi jeunesse bi tamit bëgg lu yomb comme ni ñu ko bëggee woon. ci pari foot bi kenn nangul dem liggéey léegi. booy dañuy xëy suba ba ngoon dem ci pari foot bi di jouer di xaar code pour gagner benn 2500 des fois ñu dem dal ci benn 100000 jàppee ko lu yomb léegi YouTube bi aussi c'est pareil amatul benn continue léegi nag le pire de tout sax mooy suñu télévision yi fi nekk. di may doole leen invité. télévision yi. dañuy xaar xoolal tout récemment bo booy xam nga booy ni ñu tuddee xam nga nu ñu tuddee seen bopp laa xam nga ban groupe tas ah, tasar tous tous tous tasar mais imagine ñu invité leen ay imagineel booy yu vulgaire noonu mais moom nañ yem ci internet bi man internet bu ñu fa tollee bu ñu eggee yemee si internet bi mooy sama doom du ko seetaan sama sœur du ko seetaan sama yaay du ko seetaan mais léegi nga andi ko ci télé bi imam bi dal ci parce que am na ñu bëri ñuy dox nii amuñu fii connect ay internet yi nii. saa yi matuñu 2 pour cent Sénégal xamuñu ko waay. comprendre nga léegi il suffit que nga yóbbu leen ci télé bi ñu naan waaw tout ce moom mooy lan léegi nga gis seen parce que am na xale boo xam ne bu gisee pour moom képp ku fañ télé exemple. léegi pourquoi ñu war leen yóbbu télé kon yaa mm. benn chaine la boo xam ne. Mm. buñ ci éveillé wul. Mm. suñu doom yëpp ëllëg si biir. ay nitu jaxanama la ñuy doon. donc est-ce nekkul fu mu nekk nii état bi li mu naan day xeex góor jigéen wul see boole yenn perversité yi am euh, fecc fecc yu bon yi ñuy def affaire mu jël si ay mesures ba sax li ma wax naan day day régir li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi mu jaar ko fii képp ku def loo xamante ne woo def ñuy teg lay daan bu ko defee une personne deux personnes trois personnes ñeneen ñi dinañ xam fi ñu teg day teg xam kan mooy état. Hmm. man la yow la ñun la. Hmm. gis nga kenn du la takkal soxna. jox la xaalis dem takkal la soxna. Hmm. ba pare indil la ko jébbalal la ko. Hmm. du ko def kenn du ko def mun nañ la jox financé la nga dem takki sa soxna mais kala takkal soxna doo ko ne ñëwal fajal ma sama soxna. Hmm. du ko def état day teg lu muy wax mais ñun sénégalais yi ñoo bëggul lu baax jàpp ko ci internet bi xale yi jigéen def lu leen neex et ñun ñuy dem ci médiocrité rek. médiocrité bi ñu topp di ci dem jigéen ba kañ. nañuy def très attention dañuy yuuxu fii góor jigéen yi mais xoolal. ñi ñoo gën a garaaw non secte yi ñoo fa ne la moo tax booy fees internet bi du xaalis bi la. yow la nga defal Google et pourtant Google nee na boo amee temps de kii dam lay fay. Mm-hmm. mu teg ko fan. te nee nañ la lobby yi ils sont tellement puissants. sa waay xaalis. Mm-hmm. fu mu dugg jaxase xel yëpp. Mm-hmm.